yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi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 wahab li man bi yunaaji ma yurum rabbi bi nooxin wa bi ibrahima lexfir sunubi wakfini rajima wa kun bi muusa wa bi jaayi isa waaqiyani dunya wa uxra buusa wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatillahi summa alayhim li yahab imana qad saaba alislaama wal ixsaana bi xormati siddiqi wal faaruqi julliya bil ixlaasi wa tawfiqi bi xaqi usmaan aqi nuurini وبعلي والد سبتين أبلي في دنياي ما أخرايا النور والعلو والمزايا بحق طلعت وبي زبير وحق سعد نجني من ديري وفي سعيد وابن عوف نجني من كل ما أخافه من فتني وبأبي هبيدة ما يفيد إلى جنابي وفي عني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباد كسر علمي بحق عبد الله نجل عمرا أنك في الدأب ما يجر دررا وفي ابن مسعود وجاه ابن سلام قن البلاء والدراء عين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وحفصة عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم طاهر سفي ذوائري يا ما دمائري بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشرى وتكريما بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لحبسي wa bi ruqayyata wa zeynab akfini hatta dawal hijaba kulla zamani wa ummani dunya wa ukhra bil karam bi ummi kulsumin wa janni min niqam bi awsin ibni amirin wa harami wa haqqi masruqin taqabbal kalimi wa bi rabi'i wa bi jahil aswadi wa bi istiqamatan wa qawim awadi bi amir ibni habidi rahmani wa bi abi maslamata alqawlani julliya bil qurani wa saada wal ilmi wal amali wal ibada bil asni al bashri abni al wara والانسلاق من هواي والبناء وبأبي هريرة وبي بلال وبسهيب الرب julli bi nawaal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñi seetaan fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew nuyuwaat nañ leen ziar leen di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des murit di ko ñaanam yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall mbokk yi tey benn fan ci korité atum 1442 ginnaaw gàddaak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dëppoo ak le 13 mai 2021 ñu ngi fii ci Touba Mbacké ci euh, buntu résidence Khadimou Rassoul gis ngeen mboolo mi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw muy Baye Fall yi nga xam ne jëfati nañ jëfu rafet jëf bu sell ñu nekk nag ci cappaandaw gi Euh, muy jëf gi nga xam ne ñu ngi koy faral di def ci koor gi ñu naan ko ndog yu Baay Faal yi ku ne xam na ne bu ndog yi bay Faal yi matee bésub korité am na liggéey boo xam ne moom la Baay Faal yi di amal ndax ñu bëri ñu jàpp ne euh, liggéey bi ci biir koor gi lañ lay yem kon loolu nekk na loo xamante ni ñu ngi ak euh, Serigne Mamour Ndaw bay Faal danañ ci indil ay leeral kon sëñ Mamour ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ci bésub korité gi di la baaloo àq ginnaaw buñ ko baaloo mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu seetaan mu mel ni tey ji euh, ñu ngi fii ci buntu kër euh, Serigne Touba yi Baye Fall daje nañ fi mën nañ xam lan moo tax ñu dajee fi. Mm, tubarkalla euh, jërëjëf El Hadj si la ci liggéey bu am solo bi jërëjëf mbokki Salaami TV ñi nga xam ne ñoom ñu topp ci biir ak ci bitim réew moo ngi santaat sunu borom bu baax gannaaw bu ñu baaloo àq nag mboolem jullit ñëpp. di leen baal àq di ñaan sunu borom ñu fekk ko ay ati at sunu borom boole ñu jéggal te itam lépp luñ ci jëf ci ndog yi sans dimbali ñu ba Euh, jëf ji lépp mën a yegg ndax jëf ju yegg rek am solo te loolu lañ yéene ci li ñuy jëfal sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall Baye na di sant baax seen taxawaay itam nag ndax gis nañ ne koor gi ba tey ñu ne yéen ko ànd euh, wax dëgg itam liggéey bu am solo boo xam ne def ngeen ko ci moo moo xam ci fulku bi moo xam ci conférence yi am ci jumaa ji moo xam ci naafile yi ba ci ndog yi Baye yi gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam liggéey ngeen ko ci euh, sëñ Fall ni ko waxee rek noonu la xam nga liggéey bi moom naka jekk rek cosaan la ci yoon wi waxoon naa fi ne ndigal la loo xam ne ku tedd ki moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridine ndax Cheikh Ibrahima Fall lépp lu mas a def ci ndigal la ko teg ndigalal ku tedd ki Serigne Touba sunu borom dogal nag mu tàmbali woon liggéeyu ndog yi waaye xam nga ne liggéeyu ndog yi suñ ci nekkee euh, ngoon gu jot ci weeru koor wi ñu yan ndog yi jëlee ko kër Cheikh Mouhamadou jële ko kër Serigne Cheikh jëmm indi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha bo bu ñu demee ba nga xamante ne bii yegsi nañ bu ñu ba nga xamante ne bii yegsi nañ ci yegsi nañ ci bisu korité bi dañuy togg ay añ ñi nag gis na dafay sax gën a teel ndax tey sax xaw naa guddi tuuti mais daana gën a teel euh, su ko defee ngir indil ko Cheikh Mouhamadou taxaa nga xamante ne bi tey jii nag euh, suñ ko indee nag ci la ñuy daal di nag dékk ñaan nag ngir dem nag toog dégluwaat ndigal ndax xam ngeen ne ndigal moom saa su nekk euh, day jële day jóge ci ku tedd kii di seen Serigne Touba Cheikhul Khadim di Cheikh Mouhamadou Mountakha di rot jëm ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina ndax gis naa leetar boo xam ne Serigne Abdou Lahad moo ko bindoon waxoon na kër Serigne Touba dafa am am mbañ kër Cheikh Ibra Fall am mbañ mbañum kër Sëñ Touba mooy e, war a joxe ndigal te joxe wut ndigal ku ko def lekk nga mbañum kër gi waaye mbañum kër Cheikh Ibra mooy war a jëfandikoo ndigal te jëfandikoo woo ndigal ku ko def lekk nga mbañum kër gi te yaakaar naa ne loolu moom sama borom nañ ci ndax ki war a joxe ndigal mu Cheikh Mouhamadou Mountakha saa su ne mi ngi digle ndax tey jii rek ci xutba bi firnde la ci waaye ki war a jëfandikoo ndigal it muy Serigne Cheikh jëmm saa sune ne ngi jëfandikoo ndigal kon dafay mel ne liggéeyu ndog yi moom fi ne yegg si nañ nag ci fi nga xamante ne bii fi la lañ lañ fi la fi fi lay mujj nga xamante ne bi dañuy xaari lu lu jëm ci ndog yi moom incha allah buñ ko fekkee waat ak jàmm koor yi ci sunu kanam ñu fas yéene koo àndaat ak euh, nii ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine Serigne Cheikh jëm itam sant nag bu baax a baax mboolem euh, taalibe yi euh, di ci jiital nag rakki boppam yi nga xam ne ñoom defuñu ko mag dañ koo def maanaam ab sëriñ nga xam ne mboolem njabootu sëñ Mourou Moustapha tàmbalee ko ci rakk yi sës ci moom waaye nag jàll ci mbooleem ñi nga xam ne Cheikh Ibrahima meññ seeni i wayjur te kenn ku ci nekk nga bokk ak moom maam Cheikh Ibrahima Fall te ndigal lii ba ko Cheikh Ibrahima Fall jotee ku ne xam na ne maam Cheikh diir bi mu nekk njariñ yëpp eh, togg na ndog yi eh, ci amenu amen yu sell te la la la la maanaam la méngoo woon ak jamono ca boobee ci ci ñam daa ko yóbbul ku tedd ki eh, diir bi mu nekk njariñ yëpp waaye ba mu fi jógee itam ku ne xam na ne mboolem kuy doom ku mu fi mas a bàyyi rek da ngaa wéyal ndigal loola ndax sax euh, dégg naa ci mag ñi ñu wax ne maanaam sëñ Modou Moustapha Fall moo ko njëkk a wutu fanweer ñeent juróom fukki at euh, euh, ñaar fukki at bokk muy 1930 ba 1950 waaye gis nañ ne hmm, ñaar fukki at 1930 ba 1950 waaye bi mu bi mu toogee rek daa daal di wéyal ndigal li sëñ sëñ Mortala Fall topp ci moom moom danaan jël ay kumteem jox ko ba pare. daal di nag moom itam di jëfandikoo ndigal li muy togg ay ndaw daal di lu baax da ko bàyyi kenn waaye la ko war ci diggante suñu saafal da ko daa def nag ba pare nag wëlbati ko waat nag di togg ay ndaw kon doomi Cheikh Rafal yëpp xam nañ ne bi fi Cheikh Rafal jógee ñoom ñëpp dañ naan togg ay ndaw di ko yóbbul nag ci jamono booba kiñ jamonoonteel muy Cheikh Modou Moussa ba ci Cheikh Mouhamadou Fadal ba ci Cheikh Abdoul Ahad ba ci Cheikh Abdoul Khadir ba ci Serigne Salihu ba ci Cheikh Sidil Makhtar ba ci Cheikh Amadou Lamine Bara ba tey Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg kenn ku ci nekk ka nga jamonoonteel eh, yut nga liggéey bi te booba it sëñ nañ bàyyi xel sëñ Fallou ne eh, ndog yi eh, mu du joteeg dara ak ndigal yeneen yiy rot ci noonu ndax ku ne xam na ne Baye Fall moom ndigal ko bàyyi fi mu ne ndax loolu lañ jaayante woon ku tedd ki Cheikh Ibra Fall ba muy joxe boppam ca Mbàkke Kajoor dafa woon ku tedd ki ne ko sunu borom day moo ma tegtal koo xam ne liggéeyal ko moo may gënal xeet yi ibaadaat yi muy jàng ak julleeg woor liñ xamoon daal ne ki ma yàlla booleel na mën naa ko liggéeyal ku ko mu ci safara tàbbi àjjana te loolu mën a su ko am ci Cheikh Ibra la jàng ak julli goor waaw léegi nag kon euh, Cheikh Ibra nag kon daa sasoo woon lii ndax moom jaamu yàllam sëñ Fallu mooy ñaqal ku tedd ki lii la defoon muy jaamu yàllam ci la doon sax guddi ci la doon sax bëccëg mbooleem mbooleem tamit ba mu fekkee sëñ bi ca Mbàkke Kajoor jox ko boppam ci ñaar fukki fan koor ba tey jii mos sa tekki laxasaayam du du maanaam ci riir maanaam yëngu ci alalam ci njabootam ci dooleem ci léppam ngir jëm ci ku tedd ki la mu waxante woon sëñ Tuubaa daal ci la ne ba ba mu fi jógee mbooleem mboolem ngi fi bàyyi it gàcce ngaalaama Cheikh Ibra liggéeyam sel na te mat na ndax mboolem ku mu fi bàyyi lam la sasoon ba tey ji dara manqué wu ca dafa yokk kay ndax mën na maa joxe firnde ci yokk gi mooy nda ndog yi fukki ndab ak ñaar la ko Cheikh Ibra daa def te bu njëkk daan ca booleb super ñu ko daa toggee njaareem di ko yóbbu kër gu mag booba sëñ baa ngi njaareem lépp léppam ci kanamam la. waaye tey jii boo xoolee oto yi xam ne sëf nañ lu ëpp fukki ndab ak ñaar kon mel na ne liggéey ba yokku na kon fukki ndab ak ñaar yooyee moo jur ay junni junni ndab tey yoo xam ne mi ngi ñëw ci Cheikh Mouhamadou Mountakha tey mën naa laa jox firnde tey euh, la sëñ Assane daa def bi sëñ am di xëy ñëwee ku ne xam na ne yokku na liggéey bi. lool sëñ Modou Moustapha Fall daa def bi sëñ Modou Aminta ñëwee ak sëñ Cheikh Jëmb ku ne xam ne yokku na liggéey bi hmm? ndax tey ci ñamu Touba kii fi Cheikh Rafal tey moo ko fi indi ñu sëñ Cheikh Jëmb ndax ku ndog yi bu njëkk daa nañ togg ay cere ak ndawal ndax booba it loolu lañ amoon waaye tey jii ku ne xam na ne li fi am li ci gën moom la moo indi Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax xar yoo xam dañ koy misi yu man mel nam war a mel dara du ko rax nga xam ne mën nga koo toog denc sa frigo ay ay mën di jëfa jëfandikoo dara du ci yàqu loolu moom ci jamono ji lañ ko gisee te maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko jox ku tedd ki te loolu mooy sëtam yii nga xam ne bàyyi na leen fi ñu mat sëkk liñ doon tey jii yaay fat fat fatim xëri mooy yaay sëñ Cheikh Ngunda yàlla na yàlla yokki leeram fan yi la fi bàyyi koo nee na ma sëñ Modou Moussa Fall ba ba ba ba sëñ Mortala jàpp sëñ Assane lépp fi la ma fekk ndog yi waaye loolu waaye mën a wax mu a mu ne ma sëñ Amdi Xadi moom yokku na liggéey bi ndax sëñu ma koo lim waaye ba ba tey guléet ren lañ mas a gis ku jënd ci ganaar ba jënd 15000 ganaar def ko ci benn ajjuma loolu kenn waaw loolu taarix ne loolu kenn gisu ko ko fen de seex mi xam na li xew na fa ko fekk kon loolu da ngay xama ne Baye Fall yi mosu ñoo dencal dara ku tedd ki ndax Seex Ibra ndax jekk banque bu sëñ Tuubaa la woon te maa dégg ci sëñ mu dab Laay Fall ndar mu ne Baye Saliou Fall tawa moo ko ne sama baay damaa jox fukki xar ak yaar na ma jiital ko Seex Ibra ne bi ma ñëwee njaarim fekk maam Seex dem fekk bataaxel bu sëñ tubaab bind Seex Ibra di ko laaj fukki xar ak yaar xanaa kon borom denc daay ab dencam kon Seex Ibra bànkob ku tedd ki la woon mos sa denc dara te sëñ Tuubaa xëyut yónnee loola moo tax ñun amuñu dara sëñ Fallu ñun sëñ bi rek la ñu am te fi ne danaa la wax leen bu sëñ Tuubaa ne naxee mbay ëllëg Seera Fall ne may ñàkk ak sama waa kër kenn ku mën a doon am na loo jàpp boole ko ku tedd ki ba mu de Seex Ibra sëñ Fallou li may wax ni koo defe ne du ci ca biir tedd li si laa ko def ku ne am na loo booleeg sëñ Touba ba mu des Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra julliwut Cheikh Ibra wóoru Cheikh Ibra nattu asaka Cheikh demut Makka ajiwul Cheikh Ibra ci sëñ Touba la ne dàkk romb ko jéggiwul ku tedd ki naka jekk sëñ Touba rek la am kon bu yomal xiyaamee Cheikh Ibra Fall nee na bu sëñ Bàmba na woon naxee mbaay man rek may ñàkk te tey it ndam lu waay def ci yoonu murit Cheikh Ibra moom ndax moom saa bu masaana jàkkaarloog sëriñ bi mag ñi nee nañ benn baat képp la koy mooy mbàkki rusloo woo ma mu jëm ci njëriñ saa bu gisee ku tedd ki mbàkki rusloo woo ma rek la koy wax ndax néew ma ne yow ba ñëpp na kër kër na këpp muy keneen ba ma yow la yow ba tey rek kon lii nga fi gis lépp muy ndamul yoonu murit àddina bépp di ko sagoo ci yoon wi tey lépp ndamal Cheikh rafaal la moom fa mu tëdd billaahi ku yàlla bind Cheikh Ibrahima gën a seddu xol tey dama la wax ne la li ma la wax nii gënuma ci kenn ku yàlla bind tey Cheikh Ibrahima la gën a seddu xol ndax la tax mooy lam na woon ku tedd ki yow ba tey moom la te lam joxoñoon ci sëñ tubaab ba tey lu yokk la waaye du doon luy wàññi te ku ne xam na ne wallaay lancim te démb bu esagoon Cheikh Rafa la ñuy joxoñ kon bu ndam ñëwee moom rek laa koy jox waaw ndax te loolu xam nañ ci histoire u démb ba mu naan sëñ bi sëñ bi sëñ bi booba tumuranke na lool wéetoon na ci lool itam nag lu ne dégg na ko ne lu ne jànkonteel na ko waaye da cee ne sëñ Abdou Samad bu sëriñ Soye bu mas dama dégg mu wax ne li ko li tax mu bëgg ku tedd ki Cheikh Ibra Fall Babu Mouridine ne bokk na ci lu ko gën a tax a gën a bëgg mooy fetal sax mën nañ ko tiimale Cheikh Ibra Fall ngir ku tedd ki fetal fetal sax tiimale nañ ko Cheikh Ibra Fall ngir sëñ Touba fetal kon kooku mos sa yox yoxal mos deltu gannaaw mos sa teggi tànkam ba tey lam joxoñoon ci ku tedd ki ba tey mooma moo tax ku ne amel nga ko njukkal rawatina nag ñi nga xam ne noonu alalam lan bu ñàkkee nu nàkk ndax ñun ba ñu yàlla bind Cheikh Ibra tax moo tax nag lu mu joxoñ ñu ne ca fi ne nii bu ñu jugee ci lii ci ndog yi tabaski la ñuy waajal mboolem foofu gàtt nekk te baax. Cheikh Rafal pare na ngir jox ko Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha moom foofu gàtt nekk la la wax foofu gàtt nekk tey di gàtt bu baax waxuma nag mooy yeewal baax booy bàyyi muy nampi waxuma yooyu de gàtt bu baax laa la wax tey jii foofu gàtt ne. fu gàtt ne waajalal sa bopp te xam ne Baye Fall bu ñu la fa fekkee dañ lay meeb yóbbul Cheikh Mouhamadou Mountakha loolu la ñuy waajal tabaski ndax keroog ba ku tedd ki amee ndigal korog korog keroog bi nga xamante ni bii maanaam euh, Cheikh Ibra Fall bind yónni na Baye Lamine Diop njaxeer ne ko damay laajal ma ku tedd ki ne ko ndax sañ na ma tabaski daf ko ne nee leen ko lu fi ne cay xar na ko dàq indil ma saa bu roñi ko ci jullikaay lu mu fi fekk ren di ko kon noo ngi waajal tabaski yi gannaaw buñ jugee ci ndog yi tabaski la ñuy waajal léegi nag nañ bàyyi xel ne it amoon na lu ñu sëriñ bi santoon ña nga ca woon Covid bee taxoon sëriñ bi wax ne nañ toog diglu ndigal muy stade bee ca Mbàkke nga xam ne Cheikh mun Mountakha moo ko soppi daara ak jàkka sant ko sëñ Cheikh jëm ngir mu liggéey ko loolu ñu ngi toog di déglu ndigal saa bu sëriñ bi ne acca ñu ne acca ndax nugal la ñu fi ba ñun daal jàpp na tey jii bu yoon wi soxla woon bakkan Cheikh Mouhamadou Mountakha mii tey bu soxla woon ay bakkan bakkanum sëñ Cheikh jëmm laa mooy dem gaa yi topp ndax nun sëñ bi lañ am sunu bakken yi sunu ruug yëpp jox nañ ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ay jaamam lan guddi ay jaamam lañ bëccëg ay dongam lañ guddi ay dongam lañ bëccëg bëgguñu dara xamuñu dara amuñu dara ñun sëñ Tuubaa lañ am kepp mooy sunu gànjar moom la ñuy waaje moom lañuy ñuy sagoo mooy sunu tiitar mooy sunu alal kon nag nañ bàyyi xel xam ne Baay Faal yi foofu lañ teg seen tànk yii di yëngu nag du nuru dara duñ ca dara suñu yónneewu ci buñ ci kenn limaale Cheikh ra amul dara lu ku tedd ki soxluwul dara lu ku tedd ki keroog ba ko Sëñ Tuubaa njëkk wax mbirum denc soxna te ba mu joxee boppam ba dox ab diir ba ci sëñ bi waxtaanee moom daf ko ne kon mbàkke ndekete denc ci la kon sóoraale wu ko woon yu neex yi ngeen di gis yëpp bañ naan Baay Faal léegi alal jeeg nangam a kër yeeg nangam maam Cheikh nee na ku sukk boo jug am faxasiti woom jàppaleen ko faxasiti woom yii nee na samay faxasiti woom la mooy lii ngeen di gis waaye la ma jaayante sëñ Tuubaa dara feeñ ci àdduna sëñ Moussa moo ma ko wax nee na mujjug sëñ Touba ci njaarim Cheikh na ñëw na fekk sëñ bi am ku waxal mu na ko Mbàkke daa am lu ma la bëgg laaj sëñ bi wax ak kooko ba ne ko Ibra Fall lu mu ne ko ndax mbaa dese nañ fi dara ndax yëf yi daa neex lool di mbaa dese nañ fi dara mu ne ko la ma waxante woon a yow de ca laa ne ndax da nga ne ma woon sa mbir soxlawoo ci dara ci àddina kon jàppal ne loo fi gis mooy ndab lu fees bay roogalaat ya mooy lii ngay gis yi kon loo fi gis rogalaat la waaye maam Cheikh lépp ma ngay denc ëllëg kon nag ñoo ngi ñaan ci barke borom Touba lam denc ëllëg buñ ca kenn ëppale ndax do ndax doyu ko dara lu may fay ko murid yi rek te daana wax ne fa ñuy fay ñaqal sëñ Bamba ko fa taxaw maa lay fay mbaa doo fayu te gars yi foofu lañ bëgg a fayu ko ëllëg moo tax amuñu sago ci baalu murid dina noo lay sant baax te di la gërëm tey ñaan yàlla yàggal sa taxawaay lii ngeen jumtukaay bii yàlla doon jumtukaay boo xam day daj àddina kap ñu cey wane ku tedd ki ak maam Cheikh Ibrahima Fall nee Lamp Fall mel ba ku dugg di ko seen kuy gën di ko seen yàlla na Assalaamy TV mel noonee ci mboolem jumtukaay yi xarale yi nga xam ne ñu ngi ci yëpp jaajëf jërëjëf jërëjëf sëriñ euh, maamu Ndaw Baye Fall liggéey bi am na solo lool ni nga ko waxee Baye Fall euh, nii rek lañ ko fas yéene jàppee euh, lépp loo xam ne sëriñ bi digal na leen ko rek ñu nekk ca bu liggéey bi matee ñu toogaat déglu ndigal ci loolu rek lañ sax jëfee ndigal bàyyi tere kenn xam leen ci leneen loolu rek moom mooy liggéey Baye Fall déglu ki nga xam ne moom moo fi xalif général des ba euh, des Mourides muy Serigne Mountakha Mbacké Bachir lu ne noonu la rek ñoom ñu ne noonu la bu ne wow na ñoom ñu ne kongu kon euh, foofu rek la bay Fall nekk ñu ñaan ñaanalaat Serigne Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool lool lool lool lool te ànd ak wér euh, yàlla gën koo dolli kattan ak mbooleem cheikh yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci koorug ren gi muy koorug 1442 ginnaaw gàddaa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon atum 2021 mu nekk koor xam ne Baye Fall yi amati nañ ci ndam Baye Fall amati nañ ci ndam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci ndogu yu ku ne gis na image euh, ci diiru weeru koor gi ni nga xam ne noonu lañ koy amalee fii ci résidence Khadim Rasoul bu tàkkusaan jotee ni nga xam ne noonu la fii noonu lay mbooloo mi di di di dajee lépp rek euh, jëm ci liggéeyal maam Cheikh Rafal waaye ndigal gi nga xam ne moom la fi bàyyi woon nga xam ne mësta laal suuf benn yoon saa su ne ñu koy gën a yëkkati mu jëm kaw santaat leen bu baax a baax gërëm leen dig leen euh, dajee ci yeneen i jataay incha allah di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu fekk yeneen i koor ak yeneen i ndog ñu ànd koog mboolem taalibe yi Euh, yàlla bàyyi fi suñu sang si ñoom it ñu ànd ko ñoom ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf wa bi sohibi rabbi junni bi nawal wa taataqbal wa sini min daayi sirran wa jëran bi abi dardaayi bi hormatil miqdaadi summa xaalidi wa bi zubayri awlini maqasidi wa bi amiril muminina umara qiniya makran wa saqan wa garara bi haqqi qaidil mujahidina aliyin allasi aana diina bi haqqi sahdin wa bi haqqi زدني تمسكا بوسطى عروة بحرمة القاسم ثم خارجا زدني يقف المجتبى مناهجا وبأبي بكر وعبد الله زدني فلا ماله تناهي وبسليمان قني كيد اللاهين وكيد غيره وكلني معين بأمنا خديجة هب الأمل في العلم والأدب ربي والعمل بأمنا عائشة قني ما يضرني في الأرضين والسماء بأمنا حفصة البين أبد وبينما يجر سوءا ونكت بأمنا زينب زين ما زهر مني وما بطن وجعلني وزر بمالك وشافعي وأبي حنيفة وأحمد للسجبي بجاه جبريل السجي سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل ابني نعما ونفيا علم لغيش كرما بجاه إسرافيل ابني عصما والتفني أهوال يوم الغمة بجاه عسرائيل كلني يا جميل طول حياتي وكسابة الرحيم واجعل توسلي لمن يدعو به saxaadata daarayni waxfir ni bihi waliyajun walilasi daani li nasmi bil amni wa ridwani wa bi saxaadati wa bil himaaya an jumlati al aswaai wal inaaya wa bin najaati min suaalin wa adab wa sakaraati al mawti rabbi wal hisaab wa bil bushaaraati wa bi sururi inda mamaatina wa fi nusuri wa salliyan wa salliman ala nabi wa alihi maa sihaabi nujibi waxfir li walidayya waxfir li jamia ahli wa jumlati sihaabi ya samia واغفر لكل ذي تعلق بيا وحقق سعادتي يا ربي يا واكتب بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا لا لا لا maam Seydaan Ibadah Modou Moustapha يا خير ضيف أتى بالبيت والمداني